Euh, je m'appelle Mourfal Cham, j'habite à Sénégal. Voilà, j'ai 17 ans. Ouais. jëlee naa fi expérience bu bari quoi jëlee naa expérience bu bëri parce que dama ñëw fii nii gis fi ay meilleurs joueurs quoi ay joueurs yu baax xam affaire après avant moo ñëw mais toogoon naa deux mois di entraîner rek di ko préparer di entraîner trois points Charles rek laa ko jàppee trois points. Ouais. ouais. ouais non waxtaan nañ xam nga joxante nañ expérience affaire yooyu noonu ouais. Euh, ouais ouais. Euh, les five stars. ouais c'est ça. ouais bokk na si deux. NBA Academy Mbour. non foofu damay ci NBA ci NBA Academy laa nekk like damay jàng di di basket. foofu euh, site laa nekkoon site académie après si la si la demee si la ma site yóbbee États-Unis Utah fii nii si euh, camp FIBA après si la jël MVP après si la delloo site après si la ma gars yi NBA jël ma waaw dugg NBA teral sama papa sama famille wooy dellu Sénégal investir voilà. bëgg nga jouer pour Sénégal. wooy bëgg naa jouer pour Sénégal wooy wooy.